ñaan sunu borom tabaraka wa taala sàmm nu sàmm leen di ko dollee ñaan mu sàmmal nu sunu kilifa gu mag gi nekk ci suñu kanam may ko bàyyi ko fi lool ba mu yàgg fi lool ba àggale ay yéeneem ak mébétam yépp yi nga xam ne yéene na ko ci yoon wi ak yéene na ko ci diine ji dañu ànd ko ak moom gannaaw loolu ñu ngi leen di dollee ndokkeel ci at mu bees mi nga xam ne ci lañu dugg muy atum hijriya di gàddaay gi di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu taw féexal nu ci nu jëf ci loo xam ne lu mu gërëm lay doon te def ko atum barke def ko atum yiw ñu ànd ak sunu gëm ak sunu lislaam ak sunu lixsaan ba matal ko xam nga ne ci ajuma yi waa weesu mbokk yi waxtaanoo nañ ci naka lañ war a mën a jariñoo at mu dem ak at mu ñëw bokk na ci lañ waxtaanee woon la ci gën a gàtt tënku mooy rek at mu dem li muy tekki mooy sag dund am na lu ci wàññiku gën ngaa sori àdduna gën ngaa jege alaxira kon nag danga war a xisaab sa bopp seet li woyoon la la ci rëccoon nga dabaatal ko la nga ci defoon ci lu baax it nga góor góorlu fas yéene du wàññiku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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد على السلام jëlee ci at mi jàll mooy kenn ku ne xam ne wàññiku na ci sag dund gën na laa soril sawara euh, àdduna waaye gën na laa jegeel alaxira kon nga war cee xisaab sa bopp seet li nga jëfoon ci at mi jàll lépp lu ca di lu lu ñu taamu nga góor góor lu fas yéene ko dolli waaye lu ca di ay rëcc rëcc nga fas yéene dabaatal ko te rëccu ko mu bañ laa dalati at mu bees bi nag liñ ci jëlee moom bokk na ci ay taxawaay yoo xam ne euh, war nañ ko ci jëlee mu yu bari waaye ñu xam ne ab occasion la boo xam ne yàlla nu may nu fekke ko ndax jeexal am at dugaat ci am at ndimbalul yàlla la waaye du ñëpp la ko yàlla defal na ñoo xam ne nëgë ni si fekkoon na leen fi te fekkaatu leen fi ren yow mi yàlla may mu fekk la fi nag loolu da koy def ab occasion boo xam ne dangay jàpp ne yàlla may na la nga dabaatal lu bari loo xam ne faatoon na la ci ay jëf yu baax yoo xam ne defoo ko woon jëkk ba la ngay rëccu ëllëg ni way rëccu ya nga xam ne ña ngay wax naan awalum nu ña ngay rëccu yàlla naan leen awalum nu amirkum ma fii fihi man tazakkar ñi nga xam ne defuñu woon lañ war a def bu ëllëgee dañaan ndax yàlla doo ñu may nu delluwaat ci àdduna rek ba man faa def lu nu mën a jëriñ fii yàlla ne leen ndax bàyyiwuma leen fa woon lu ngeen mën jëfandikoo ba def li ma leen digaloon mayoon naa leen ko kay kon yow mi ko yàlla may nga fekke ko fas yéene dabaatal ci sa lépp la nga ci defoon ci lu baax nga fas yéene yokk ko waaye la nga ci defoon ci ay ñaawteef nga fas yéene jéggulu ko te rëccu ko bañ koo defati wa man tadaaraka alladi qad faata min allaha wa amara al aqwata bi tawbati nasoohi wal iqbaali ila al ilahi faasa bil kamaali ku dabaatal rek ku dabaatal rëccu rek yàlla dana jéggal yàlla dana la may li nga bëggoon bokk na ci nag euh, mbir yi nga xam ne war nañ cee góor góorgóorlu ci at mii nga xam ne moom euh, ci lépp lañ war a góor góorlu waaye nag li ñuy tàmbalee góorlu gi mooy dundal waxtu yi dundal bis yi bis yi bisi at mépp ñu dundal ko waxtu yi at mépp ñu dundal ko bañ ko sànk ci lenn loo xam ne lu dul am njëriñ la lanu daloon ci atum daaw ma kum ca daloon nga fas yéene loolu du la daal ci atum ren mi waa wa awmidil awqaata bin nawaafili baadal faraidi bi la taxaafuli sa waxtu yépp sëriñ bi nee na na nga koy dundal ci farata waaye na nga koy dundal ci ay naafila ba doo sàggan doo yaafus waaye rawatina nag dundal googu nag ay dàkk bis yi nga xam ne nag yu yàlla tànn la yàlla moo bind bis yi bind waxtu yi waaye te tànn ay bis ak waxtu yoo xam ne defal ko ci moo ko gënal defal ko ci yeneen bis moo ko gënal ko defal ko ci yeneen waxtu bokk na ca bis yooyee nag bis bii nga xam ne mooy suba ak gannaaw suba ñu xemem lool ku ko woor ab yool bu rëy nekk ci ak nga ne lu rëy nekk ci loo xam ne ku ko woor mën ngaa daje ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee na ci ibnu abbas mu ne musuma gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy dàkk bis bu muy woor bu dul euh, euh, bis boo xam ne gënal gënal na ko gën bëgg na caa woor bu bu bu gën yow ma ashura yow ma ashura daal naka jekk daf ko daan dàkk di ko di ko woor muy bisu fukkeel ba bisu fukkeel ba da ko daan dàkk naka jekk musuma gis bis bu muy dàkk ni muy dàkkee bis boobu di ko woor moom it yonent bi sallallahu alayhi xaf sa Xafsa mi nga xam ne ci waa këram la bokkoon nee na musuma gis eh, musu eh, ñeent a ngi ni yoo xam ne yonent bi musu leen a bàyyi musu leen a bàyyi benn jamono ci ak dundam muy weer woor fukkeelu bis ci tamxarit ak woor fukki fan yu njëkk yi ci tabaski waaye waroon ñetti fan ci weer wu ne ak ñaari rakkay fajar jëkk ngay jul suba nee na yii moom musumaa gis yonent bi bàyyi leen ci diiram dundam dépp musumaa gis mu bàyyi leen kon loolu tegtal na ne yow mu asura woor ko am na solo lool yonent bi nee na woor bisu asura day kaaf day day far bakkaari at mi ko jiitu woon yépp daf leen di fan ku ko woor rek yàlla da lay jéggal sa bakkaar yi nga xam ne moom nga defoon ci at mi jàll yépp yow ma yow ma arafa da lay jéggal bakkaar yi jàll ak yii di ñëw at mi di ñëw waaye yow mul Euh, ashura dañ lay jégal bàkkaar yi nga xam ne moo moo wéyoon yépp yow mu taas yi nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko moo ko mébatoon bi mu dikkee ma Madina fekk yahud yi di woor bisub euh, ashura di ko màggalee Moussa ma ci yàlla musaloon mu ne leen maa leen gën a yey ci musa daal di koy woor ñu ne ko ah bis bi di yahud yi ñoo koy woor ak nasaraan yi mu ne leen bu at mii di ñëwee danaa woor juróom-ñeenteel bi boole ko ak fukkeel bi ndax boo wuutee ak ñoom wuute ak ñoom woor juróom-ñeenteel bi woor fukkeel bi loolu moo tax ñuy so ñuy sopp ku mottali yonent eh, mébétum yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ca nam ko woon waaye bala at may laata del si yàlla moom ko kon yéene woon na ko woor kon ku ko woor it mottali nga yéene jooja te mottali nga sunna ba it kon woor juróom-ñeenteel bi ak woor fukkeel bi yépp moom lañu sàkk ba gën a kawe mooy ña woor ñaar yépp waaye ba ca gën a suufe nag mooy nga woor fukkeel bi kepp fukkeel moo gën a ëpp ngëneel nag moom su eh, eh, eh, sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu wax na ci Masaalikul Jinaan ne wattafaqu fi fadli ashuraa ala allati yudaa bi taasuaha li kawni aksara minhu ajra fa asbitan sawmal jamii dahra nee na ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne asura moo gën taasuwaa bisub fukkeel ba moo gën bisu juróom-ñeenteel ba ndax moo ko gën a bari ab yool waaye nag yow na nga saxal wooru leen ñoom ñëpp taasuwaa ak asura ndax gën a bari téewut am nga leen taasura am na ngëneel asura am na ngëneel da koo ëpp ngëneel boo leen boole ñoom ñaan ñëpp nag ngëneel ci kaw ngëneel lay lay doon te moo gën a am solo moom bis boobu nag yu baree bari xew na ci yoo xam ne nettali nañ ko ci boroom kutubu siire yi kutubu taarix yi nettali nañ ci ay xew yu bari yu ci xew yoo xam ne ku ko bëgg e, xam mën ngaa delluwaat ci kutubu siire yi wala nga rawatina e, téere yi sëriñ bi nga xam ne wax na ci lu bari bokk na ci li ñu war a fàttaliku ci tàmbalik ak mi itam mooy ñu xam ne mooy at mi nga xam ne ci la ñuy tàmmule waññi euh, atum jullit yi hijratu nabi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay gi yonent bi war nañ ko ndax moom lañ jàpp war cee tàmbulee waññi atum jullit yi ndax jullit yi bi ñu ñëwee dañoo fekk yeneen xeet yi ci des yépp am am xew-xew bu ñuy tàmbulee seeni at nasaraan yi am ko mu juddug Seydina Isa yahud yi am ko furs yi am ko kenn ku nekk am date boo xam ne ca ngay tàmbulee waññi sa naan la jëkk at sàngam la jëkk xew-xew sàngam ak gannaaw xew-xew sàngam ñu fekk loolu am te bëgguñoo roy ñooñu ndax bokkuñu ñoom eh, Seydina Omar radiyallahu taala anhu yàlla may ko moom mi nga xam ne ay waxam da daan dëppoo eh, bëgg-bëgg suñu borom tabaraka wa taala suñu borom ilham ko may ko mu tànn bi bisub hijra bii nga xam ne ci la yonent bi jóge woon Màkka dem Madina ne nañ ko tànn def ko muy at mi ñuy tàmbalee wàññi suñuy at yi nga xam ne mooy ati jullit yi te mënoon na koo tànn ci eh, gane yonent bi sallallahu alayhi wa mënoon na koo tànn ci bis bañ ma ne na ko tànn ci ba mu génnee àdduna yooyu yëpp yu am solo la yu am maanaa la waaye ijra bi dafa gën a am solo ndax ci la lislaam amee la mu bëgg ci la lislaam taxawee ci la lislaam dunde ci la lislaam am loo xam ne soppiku bu wóor wér wér péng jugee ci ak lompañe jugee ci ak euh, ñàkk doole euh, jëm ci ak doole jëm ci jàmm jëm ci sax ak euh, istiqraar boo xam ne mosuñu ko am ca la jiitu loola yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk na Makka dafa jànkonteel métti yu bari mook saxaaba yi lu mat fukki at ak ñett ñu jànkonte fa loo xam ne ci ay eh, mant nattu ak i musiba ak i eh, mbugal loo xam ne mënees koo misaal ba mu demee ba metti lool nag suñu borom tabaraka wa taala digal ko mu gàddaay jógee Makka gi nga xam ne moom la gënoon a bëgg ci réew yi ndax ba mu koy bàyyi di dem dafa taxaw jàkkaarloog suuf si màkka si yéeg ci kaw aw doj ne ko yow de yaay yaay yaay dëkk bi ma gën a bëgg ci àdduna yow yow yaay dëkk bi yàlla gën a bëgg ci àdduna yow man it ma moom yow laa gën a bëgg ci àdduna bu fekkoon sa waa sa sa nit ñi génnewuñ ma de du ma la génn waaye ñoo ma génne moo tax ma génn kon loolu wane na bëggeel gu mu ko bëggee woon waaye suñu borom tabaraka wa taala digal ko mu gàddaayee foofa ngir sàmm diineem ngir sàmm euh, euh, pas-pasam loolu rek moo taxoon ñu di di ñu digal ko mu jógee foofa mu mu mu waajal ko it nag ci waa Madina yi nga xam ne dañoo doon ay nit ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa pare pare pare nañ ñoom pour dimbale ko la ko waa Makka bañaloon lépp ñu taxaw ñoom pour jàppale ko ca loola gëm ko dimbale ko ci diine ji tasaare ko aar ko defal ko lépp loo xam ne moom la soxla woon ba yàlla tagg leen sunu borom tabaraka wa taala tagg leen ci alquran tagg woo xam ne ñi ngi koy jàng di ko jaamoo yàlla di ko jullee ba yowmal qiyaam du jeex lil fuqaraa il muhaajiriina alladina uxriju min diyaarihim wa amwaalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana wa yansuruuna allaha wa rasulahu ulaika hum alsaadiquun walladina tabawwau ddaara wal imaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan mimma utu wa yutiruuna ala anfusihim walaw kaana bi xasaasa muhaajiruun yi ak lansaar yi ñoom moom ñaari tagg yooyu suñu borom tagg leen wax leen ci loo xam ne euh, tagg wu rëy rëy gi mooy bis euh, at mi nga xam ne wala bis bi xew-xew bi nga xam ne moo may julli di ñu taxawal am am réew taxawal am réew moo xam ne ñoo ko moom Ah, l'islam di ko atte du julli di fa dund seen dund bu bu dal di fa dund seen dund bu bu bu bu bu bu am solo raayaw lislaam taxaw fa di di di kawe lool di yëngatu ñëpp di ko seen mu am doole lool kon jërë bi nekk na xew-xew bu am solo wala moo gën a am solo ci xew-xew bi lislaam yi ndax liñ bëggoon ci lislaam ci lañ ko amee liñ bëggoon ci lis ci diine ji ci lañ ko amee ay xew-xew yu bari xew na ci ci ijra bi ba yoonti bi jógee Màkka ba ba muy dem Madina yoo xam ne moom it kutubu taarix yi nettali nañ ko rawatina sëriñ bi ci jësbul xulub waaye liñ li nga xam ne moo am solo nag mooy li ñu war a jëlee ci hijra boobu xew-xewee ca xew am na solo xam ko am na solo waaye bu ko xamee ba noppi nag lañ ca war a jëlee nag mooy ay bind bind yooyu nag bari na lool waaye mën nañ caa jël benn bind rek boo xam ne tolloo na ak jamono jii ñu nekk muy jamono yi wéradi yi nga xam ne moom la yàlla wàcce ci kaw suuf mooy ñu xam ne wakkiilu ci yàlla jox ko sa bopp dàqontewul ak jël ci sabab yi nga xam ne moom la yàlla wàcc ci kaw suuf ñu war ko jël ngir mucc ci lépp loo xam ne lu ñuy war a mucc la ndax yàlla mi digle wakkiilu moo digli jax jël ci sabab yi kon kenn ku nekk war ngaa ni nga war a war a gëmee wakkiilu ci yàlla wala ni nga ko war a defee noonu nga war a defee sabab yi ndax yonent bi mooy imaamul mutawakkiliin boolem wakkilkat yi moo moo mooy mooy seen njiit waaye lam ko doon doon lépp ak la ko yàlla bëgg-bëgg lépp téewut ba mu demee ba xelam ba yàlla digal ko mu mu mu mu gàddaay dafa jël mboolem sabab yi nga xam ne moo koy tax mucc ci ay noonam Euh, da koo jël teg ci kanamam ma ngi ko tàmbalee ci digal Seydina Ali mu tëdd ca lal ba sàngoo mbàjj ma yéefar yi defe na mooma jógee ci digal Abu Bakar mu waajal ay ay ay ay gëléem yoo xam ne yu am kàttan la ñu doon ca la ñuy ca la ñuy war mooy ñaari gëléem digal sàmm ba saa buñ yendoo dox sàmm ba romb ca seeni tànk far ko ngir ñi leen di topp duñu leen gis dem ba àgg ci xunti ba nga xam ne ca lañ dugg ñoom ñaar boog Abubakar euh, yéefar yi waroon leen fa mën a fekk waaye yàlla aar leen ba fekk loolu lépp ay sabab la yoo xam ne yonent bi daf ko jëloon ngir mucc ci ay noonam te mënoon naa wakkilu ci yàlla rek ne jox naa sama bopp yàlla yàlla dana ma musal waaye defu ko daa def loo wakkilu ba noppi jël sabab yooyu yëpp jëfandikoo kon comme na mu ko jàngale woon sàmm ba sàmm ba dikkoon ci madina yeew gëleemam dikk di nuyu yonent bi ñu ne ko sa gëleem gaa ngay dem demal yeew ko eh, mu ne bàyyee naa ko yàlla yonent yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal yeew ko ba noppi te wàkkilu ci yàlla demal yeew sa gëleem ba noppi te wàkkilu ci yàlla loola lu pratique la loo xam ne daf ko jàngal nan la ñuy defee tawakkul mooy def li la yàlla digal ba noppi nag wa eh, jox sa bopp suñu borom tabaraka wa taala loolu lépp kon wane na ne wàkkilu moom lu am solo la loo xam ne ñun war nañ koo jël ci suñu bind sëriñ biir jàngal na ko suñ sëñ Muntaxa mi jàngal nu loolu wakiilu bi lii ñëwee war nañu ko def ci liñ ci war a def lépp waaye nag bi mu wakiiloo ci yàlla jàngalu alquran jàngalu xasida téewul sabab yi ciy tax a mucc yépp tam mu def ko mboolem luñ ci digle na day tax a ñu gis ko mu di ko def di ko jëf ñu war ko caa roy ca loola xam ne ak tawakkul laa yunaafi al axza bil asbaab kon nañ ci góorgóorlu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Mm. ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an laa السلام الحمد لله الذي اختار لنا شهورا وأياما لا يحصى ولا يعد قدرها نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا يضيع أجرها ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شمس الموجودات وبدرها صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة تتوالى وتدوم ولا يبلغ كنهها أما بعد فيا أيها الناس اغتنموا أوقاتا يقصر عن ساعتها عن ساعة فضائها فضائلها الجو والفضاء ولا تعرضوا عنها فالمحروم من كان عنها معرضا فإن شهركم هذا له فضل عظيم عند الله وشان وهو أفضل شهور كلها للصوم بعد رمضان قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ولهذا الشهر مزية ليست لغيرها من السهور ولا سيما يوم عاشوراء العظيم المسهور وإنه مسحون بالخيرات والفضائل مسهور عند الأواخر والأوائل فهو حقيق بأن يحظم ويصام ويحسن فيه إلى المساكين والأيتام ويتصدق فيه بما تيسر من لباس وطعام الحمد لله الذي أنعم علينا بإحسانه وهبانا بمزيد فضله وامتنانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد فيا عباد الله تذكروا بآيات الله واتعظوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وعلى سنته حافظوا قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله الله على غيره وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فإنه صلى الله عليه وسلم كان أراد أن ينقل الصوم إلى التاسع وقيل أراد أن ينقل أن يصوم العاشر والتاسع ولهذا استحب علماؤنا أن يصام اليومان معا وقال أيضا من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه جميع سنته وقال أبو بكر بن العربي رضي الله عنه أما النفخة يوم عاشوراء والتوسعة فيه wa maxluufatun bi ittifaaq nafaani llaahu wa iyyaakum bil qur'aani al mubiin wa bi xadiisi nabiyyi saadiqi al amiin yaxfirullaahu lanaa wa lakum wa li jamii'il muslimiin amiin allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah الله اسم ربك العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا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 تصلي بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى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 ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله الله assalaamu aleykum assalaamu